jeexal nay wax télé Sénégal du télé Guinée du télé Gambie donte ñooñu sunu ay doomu ndey lañ ñëwaat ci seen émission kaa bi émission bi nga xam ne man jàpp naa ni faradul faradul kifaaya la jaamu yàlla la émission bi nga xamante ne day jël ay sujet tabu day jël ay cas yoo xamante ne kenn nanguwu ko traité mu jël ko traité ko tey nag sama xol tooy na mais dama xaw a tiit sama fit moo dem parce que euh, dafa am koo xamante ne dafa am crédibilité lu mu wax dëgg la muy Pape Sidi Fall ñu koy nuyu sama copain Fall Ndiaga Ndiaga ñu ngi lay ziar bu baax a baax moom dafa génn sur les réseaux mu ni médecins yi dañoo def étude bi ñu defee étude ñu ni daanaka dëkk bi ñëpp dañoo sidaal léegi nag pour ma bañ leen a spoilal lenn damaa bëgg ñu dem déglu Pape Sidi li muy wax ñaata nit ñoo siddaa fii ci dëkk bi. noonu la jàppee mbir yi euh, ñoo gëstu. al ne Sénégal. jigéen ñi am 15 ans jëm kaw lu tollook 22000 800 nangam nangam danoo sida góor ñi 15000 ñoo sida attention sosette les gars sosette waaw musiba naaru laay euh, genn gaal moo euh, toje république dominicaine 14 morts lañ fa fekk ñaari sénégalais nga ci woon biir euh, waaw Woodside moom war naa jox xaalis bu bari sunu douane bi Sénégal. melodi ok ñoo ngi jàll sax euh, élément boobu doon duggaale si vidéo ñoo ngi jàll ak ñu 14 morts yooyu noonu dee ca république dominicaine beneen kaala xam naa dinañ ci ñëw moom it xam nga parce que émigration clandestine bi suñu ay doom ñoo siy dee rek te defuñu lu bëgg a tekki xam nga bu suuf neexoon golo du yéeg donc dégg ngeen Pape di li wax nee na 22000 xale yu jigéen. yu am entre quinze ans vingt deux mille mooy suma juumul suma juumul mooy ñeenti mooy ñeenti junni ak ñaar yoo xamante ni ay xale yu jigéen dañoo am virus bu ñuy woowee sida quinze mille xale yu góor yu am entre quinze ans ak vingt ans dañoo am sida te li muy wax ni mi ngi ko teg ci docteurs yi waa CNLS ñi nga xam ne man contacté naa leen personnellement parce que li ma leen waxoon man su may dugg ci benn sujet dama see bëgg a dugg à fond damay bëgg dem def recherche xool lan moo xew dëgg-dëgg donc dama yaakaaroon ni population bi yëguñu ko mais y a pas mal de gens yu ci wax donc sama réalisateur su baaxee ñu dem xoolaat keneen koo xam ne elle averti Mati ndeysaan sama xarit la moom bu baax bu dee mi ngi may xàmmee sama gain la keus ñu xool réew mi toj na de réew mi toj na hépatique B bi ak sida bi mi ngi toj réew mi plus de vingt deux mille jeunes filles am nañ li nga xam ne mooy feebar bi sida fii si biir Sénégal te ñoom ñoo feeñ le bilan bi gën a tuuti la hépatique bi moom waxaalewu ma ko mi ngi rajaxe dëkk bi léegi nag yéen ñi nga xam ne da ngeen a am feebar yi ñu leen di ñaan ngal la waay ngeen ngeen def seen i mesure de prévention ba bañ ko wàll benn doomu aadama ndax nit boo wéradee war nga ko mën a yemale ci sa bopp faju te xam ne loo gis am na garabam yéen ñi nga xam ne nag amagoo leen ko ngeen jël seeni mesure de prévention ba feebar yii bañ leen a dal ngeen bañ koo gën a yokk ci biir réew mi ndax sida rek mën naa tëjum réew hépatique moom waxaalew ma ko waxaalew ma ko ñaari feebar yi ñu ngi toj dëkk bi état bi nag war nañ cee wax jéeg ji war ngeen jël seen i disposition góor ñi jël leen seen disposition ndax seen doom ñoo tax ndax feebar bu duggee ci dëkk xale yi lañuy ñuy njëkk xalaat xale yi la ñuy njëkk xalaat kon nag ku yor sa wér bi ngir yàlla rek téye ci sa bopp nga bañ koo wàll kenn te ngeen partagé vidéo bi yéen ñi nga xam ne nag dugg góo leen ci sëy ngala balaa ngeen dugg ci sëy def leen test hépatique te ngeen def test VIH ñaari bu leen ko fàtte bu leen ko bàyyi ginnaaw naka ñëpp dem defi surtout hépatique bi jamono bii moom na ñëpp dem defi dépistage ñu jug ci suñu bopp parce que mi ngi toj dëkk bi te ñun ay gone lañ dañoo war a yori réew ëllëg kon nag nañ jug ci suñu bopp jël suñu mesure de prévention ba feebar yii nii ñu teer koo daan mu dem tooge nii lii nag laa am pour wax ko mi ngi noonu. gis nga ñoo ko déggandoo soxna Mati ñoo ngi rafetlu bu baax kàddu yi si lu mu wax noonu dégg nga lu mu wax moom li mu wax c'est très important nee na daf si yokkaale sax beneen feebar boo xam ne tey indiwu ma fi mais muy hépatite B dégg naa aussi ci bilan bi la génnaale que majeure partie ci boy dañoo amee hépatite B aussi sans le savoir ah mi ngi wax lu am solo nee na. ku ciy dem di sëyeeti balaa ngay sëy na dem def dépistage dépistage nag ñu bëri dañ jàpp ne lu garaaw la ay dem wut benn këyit la def li non jafewul noonu billaay wallaay taalaay fi nga toog noonu yow fi nga toog jëlal sa téléphone nga woote 33 869 09 09 incha allah dinañ la wuyu dinañ la teg si piste di nga dépisté wu si jàmm te kenn du la xamal dara te diñ la la faj si jàmm loolu garaawul man sax dinaa si jàpp ba ñu bari dépister ñu àndandoo ñu ñëpp dem dépister ji ensemble comprendre nga dooleel gars yi donc sama réalisateur bu baaxee ñu dem déglu keneen ku ci am ay xalaatam aussi. Sida baa ngi lëmbe réew mi Sida baa ngi lëmbe Sénégal xaw ma ndax yëg ngeen ko xaw ma ndax yëgoo leen ko waaye ñi nga xam ne ci mooy yàlla lañ dëkkoon ci njaaloo lañ dëkkoon bu ngeen yaboo ngeen bàyyi ko ca ba muy teel ko. ndax fi toll nii kaa yaa ngi yokkee nu ne te sida kenn du ko gis ci jë donc kenn mënul xam ku ko am ak ku ko amul donc moytu leen bu baax encore une fois téye leen seen bopp pour éviter yenn maladie voilà. dégg nga moom it xalaatam la wax mu ngi wax ba ni njaaloo mais yemul si njaaloo sida nekkul. si njaaloo rek bien que njaaloo nag da koy joxe xawma ma njaaloo lañ koy wax da koy joxe mais dara dagg la da koy joxe ça se par le sang ay dara dagg kii dagg nga daggaat si daf koy joxe ay bokk coupe ongle ay affaire yooyu ñu lay xoosal sa tànk si mbedd bi xam nga ay xam nga yeneen ak yeneen bien des choses ñu fi nekk di ko lim mais en tout cas dret nga dagg kii dagg wala ñu utiliser benn seringue si hôpital boo xam ne dañoo négligent utiliser waat ko si beneen nit donc li koy joxe bari na waruñu mën a stigmatiser nit yi ba ne ñi ko am moo tax ñi ko am ma leen di wax ne kenn du leen xoolee benn bët ndax ku ne mën na koo am ku gën a jub ci àdduna mën na koo am te dañ koy faj dañ koy faj nga nekk ci jàmm kenn du xam ne yow lii dal na la wala lee dalu la ci ñi ma leen wax am na ay nit yu koy liggéey may nuyu madame Ndiaye di ko wax ne Maram Ndiaye férié bi la mais nañ ci jàpp ñu jéem a defaat sax nuñ mën a def suñ kéemtalaay kàttan ba affaire yi gën a taxaw ñu dépister le maximum de gens ba pare booy ils sont pas informés ils sont pas informés man xasuma leen mais CNLS bi nekk hôpital Fann seen liggéey maa ngi jéggalu des na des gi mooy Maram Ndiaye yow yaay chargé de com bi chargé de com mooy ki nga xamante ni. dafa war a yóbbu information bi si bañ ñi nga xamante ne mënuñu jot sax information yi booy xamuñu sax fu ñuy dépister booy dañu ragal a dem dépister booy dañu yaakaar ne buñ dépister nii dañuy tiit wala yooyu noonu donc boo leen mayoon courage fexe leen a ëmbal seen sutura xamal defal leen ko à leur manière dem fekk ji leen peut-être dinañ dépister man noonu laa ko gisee quoi te wax naa la ko directement nga koy dégg donc sama réalisateur bu bu bu baaxee ah bu fekkee am na beneen vidéo keneen ko am xalaatam mu jox nga jox ñu boobu noonu. Bamba maa ngi lay ziar tey dëggal sa kàddu yi nga jot wax yëpp ci coow.